الحمد لله الإخوان الأحباب والأحباب كما عودنا إقامة تعظيم مولد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سيد الإسلام الحاج إبراهيم بني ابي ابراهيم لا هلاله هلال وظال ناظرين جماله أهلا بسهر مولدي ذكرنا مولدي إلى ونحن في استعداد إلى سحاب كاكولا كفر مدينة سعد الرحمة كما أننا سحبنا إلى كولا وأردنا أن ننصرف إلى مدينة باي كفر مدينة الثالث لسعد الرحمة ولنا استعداد تام لنا العامة وأردنا أن نفعلها كما وجب ولنا سيارات وإن شاء الله ربي معنا جماعة كافية ومعنا بناء ونتمنى من جميع الإخوة من الأحباب والأحبة الدعاء لأن نصل بالسلام درجة مولاي برحمة برحمة هكذا هذه كلمات أردنا إلقاءها لكافة الناس هكذا السلام عليكم ورحمة الله maa lay fay maa lay diar bu baax waaw di demaat gàmmuwaat naka ngeen koy préparé ah waaw dëgg la ñu ngi jóge ci gàmmu waaye demaat gàmmuwaat ñu gàmmu mbégte la ak yokkute ndax kii tax ñu dem gàmmu janalu ne suñu maam la mais suñu maam boo xam ne mën na maam la ndax su ne doon moom ah luñ jëriñ ñu fi bàññee duñ xam xamal nañu ñu kii xew kii Cheikh al Islam ah teg nañu si yoon bu baax a baax xam nga mënoo jiitaale bi Cheikh Abdoulaye Wilane boo xamante ne doo ko jiitee rek nga xam ne kii Cheikh al Islam bi la ndax ëdëb bu mu def si ñun yombul ñu dem ko si doomu jaajëfal bi ala baay yow moom kenn du la laaj looy def ci kër gi mais dañ lay laaj naka ngeen di préparer li nga xam ne mooy gàmmuwaat jóge ci gàmmoo ci gàmmuwaat <laughs> waaw euh, man waa Gandiaye ak waa Gambo ak mbokku taalibe ni moom la ñu lu tax ndaxte ki nga xamante ne ñun moom lañ yaakaar foofu la jógee tey tey maanaam foofu la jàngee tey lépp lu mu am ci yàlla fa la ko amee ñu koy dem moo tax am na ñoo sax léegi dañoo commencé bàyyi ba gàmmuwaat di xaar gàmmuwaat pour dem ànd ak sëriñ bi ndaxte nit ku sëriñ di amee ndam nga bëgg sëriñ di amee lépp dañoo moo tax tam mois bu jotee da ngay gis ni xale yi di sawaree da ngay gis ni bi di sawaree da ngay gis képp koo xamante ne muy ànd ak barxaama abdu barxaama nu muy sawaree ndaxte buñ fay dem ak kontante lañ fay dem buñ fay dem ak yar lañ fay demee buñ fay dem ak sant yàlla lañ fay dem moo tax lépp lu ñu am rek ci gàmmuwaat bi lañ koy def te ñu ngi ciy ndokkeel bu baax am na loo xam ne am naa sañ-sañu laaj la lan mooy secret euh, ki nga xam ne mooy Barha Baye Barham Diouf bu gàmm bu ñëwee wala gàmmuwaat di ñëwee ay affaire am di gën a yëg. waaw secret am du lenn moom moo ñu ko doon wax mu ne sama papa dafa ma waxoon ne lépp loo am jox ko baay waaye lépp loo soxla laaj ko baay. moom ci diggante boobu la lépp lu mu am xalaatu koo denc Baye Niass la koy jox. moo tax lépp lu mu soxla la ci ay bisam Baye Niass moo koy jox delloowaat loolu rek du dara loolu rek loolu rek may mbóote am nañ mbégte bu baax a baax maadaan ñu ñëw fekkal keur bay Barham euh, ngeen jóge ci gàmm du dugg ci wat naka ngeen di préparer li nga xamne moy mooy wat yeen ci geen ñi yëkkati micro tout tuuti ah, micro bu fas yéenee dem Kaftoum rek maam Cheikh Ibrahima gis nañ am Baye Barham Diop si xitma la ñu la ñu xiir loolu la ñu jàngal loolu la ñuy ne fas yéenee dem rek xitmaam Abi Kanté Ami Kanté ñu ñëw Kër Baye Barham bi fekk la yaakaar naa ci sécurité nga bokk euh, yéen sécurité bi naka ngeen di préparé bi nga xam ne mooy gàmmu gàmmu waat ah ñu ngi bi yëpp baax affaire bi rafet moo tax léegi itam euh, li nga xam ne jigéen ñu tànn ay quelques jigéen boole ci li nga xam ne mooy euh, sécurité bi lan la def ci yéen en tant que jigéen fierté la man parce que dama toog ba ñu parce que tey ci góor lu mu nekk ñu boole ci jàppal na jàmbaar ci lu mu nekk jàmbaar gi sama ko moo tax bañ ma ci boole damaa kontaan vraiment lan ngay tàggatoo lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax li nga xam ne mooy sa morom jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi dem tàggatoo ah, góorgóorlu bu baax rek jàpp faydu bi faydu bi moom ku ko bàyyi moom nañ góorgóorlu parce que tey góor lu mu góorgóorlu jigéen mën naa góorgóorlu bu fekk ko foofu noonu ñu góorgóorlu bu baax a baax daal topp ba kontaan naa si. mii ñu ñëw fekk la fi nga xam ne mooy kër Baye Barham Diouf euh, boobu ba léegi ñu léegi si gàmmu bi ak gàmmuwaat bi ñu jëm naka ngeen koy préparé. gàmmu bi ñu koy préparé rek. Mhm. préparé ba am jom. Mhm. ndax ay taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima lañ. Mhm. foog dem Kaffrine def ni ñu doon def rek sa at. waaj ko rek def rek yaa ma xam. waaw lan mooy seen secret ñu ngi yéen ñi nga xam ne yéenay taalibe Barham euh, bu ñu gis ne chaque année daanaka jéego yi day gën a yokku. ah yoonu lislaam Mawlana Cheikh Ibrahima chaque jour day gën a yokku te loo ci def 100 pour cent beneen gàmmu day gën a yokk def ci 300 pour cent bàyyi nag moo mel noonu mooy borom faydu bi loo ci def rek doo ko rëccu ci barke Cheikh Tidiane. ñu ngi xam ne ñooy sa moromu jigéen ñi jëm ci gàmmuwaat bi lan nga leen di wax. saag ñu waaj ñu ko doon waajee chaque jour rek. yegg nekk si waaj rek nekk ci bi yeeg liggéey bi yëpp ni ñuy def chaque at ndax moom ñun moom waa waañ lañ. waaw yaa ngi gën a xam. waa waañ bi maa leen di xaar suba parce que yaakaar naa ne daaw moom ala daaw mi woon. waaw daa am rafetoon na macha allah. tubaarkàlla macha allah yaakaar naa ne yéen moom seen i jéego ci kanam la jëm. waaw loolu am na moom. Hmm. kon mën nañ cee xaar nga. waaw mu ne mu mën nga xaar suba moom du dàq loolu mooy ñëwaat. ak li ñu waaj moom xalaat doom chaque jour day gën a yokk at bu nekk leneen lu muy àndal leneen xaal lu muy àndal. kon nañ xaar surprise suba incha allah suba dara du yomb. sant bi naka la. fay naa leen man Adou Baye laa tudd ñu naan ma Adou Baye Diouf. ci kër gi nga bokk. waaw yaakaar naa bu ñu nee Adou Baye Diouf rek euh, ci fondement kër gi nga bokk léegi ñu ñoo ci di dem préparé waat gàmmuwaat bi ci toolu ci convoi bi nii naka ngeen di préparé li nga xam ne mooy gàmmuwaat waaw gàmmuwaat bi nag comme ni ñuy préparé gàmmu rek lañ koy préparé à l'avance la ñuy def nga buy ñëw ñu programme xool ni ñuy dund li nga xamante ne mooy dépense bi dañuy calculer lépp daal ndax dañuy cotiser lépp préparé lépp ci période bu gàmmu kon gàmmuwaat bi aussi noonu lañ koy waajale ndax gis nga action yi ni mu demee noonu béy yi xar yi lépp ceeb beeg diw yi tout lépp a pare suñ lépp daal dañ ko yóbbu nga xam ne bu ñu demee duñ soxla dara macha allah. ñun dañuy préparer suñu bopp ba nga xamante ne bu egsi rek dañuy continuer noonu def suñu lépp. ndax ki ñuy àndal moom moo mel tamit dañu topp si ginnaawam rek di jàpp. organiser ba mu baax. waaw loolu daal dañ koy defee léegi bu ko defee coono bu ci am. am benn jafe-jafe ci organisation bi macha allah. lépp a yemb daal dañuy jënd suñu lépp daal yombaale comme gàmmu daal ni ñu defee ndax dafa doon loo xam ne dafa ñuy allah.

surtout gëm seen bopp aussi ndax nit ki nag boo gëmee sa bopp di nga xam fi ngay teg sa taat di nga xam li nga bëgg ndax moom toujours ñu ñuy ñaax lim ñuy gën a ñaaxee nag jàpp suñu li nga xamante ne loolu moo ñu war ñu di ko def ñu toll nit sa taat tey laaj conseil aussi loolu bokk na ci loo xamante ne dina tax nit ki jëm kanam mhm. boo demee si ki nga la xamante ne moom moo la mag nga di ko laaj conseil mhm. ah yaakaar naa ne du réer man de ba waxtu bi damay laaj conseil ndeysaan kon nag bu ñu ñun tam ñu conseillé parce que dañuy laaj conseil comme sant yàlla te waajur aussi ku ko déglu ah nit ku baax la de dëgg la nit ku baax la sama nitu la am nañ ci yow bu baax baax yaa merci beaucoup alhamdulilah dañu leen gis ni ci yaa Goudiri euh, ngeen lan leen Baye Barham Diouf spectateur je m'appelle Femme Diouf Gaël Bassam de Gandiaye. comme vous le voyez, nous sommes dans les préparatifs pour partir de Cameroun. Et comme vous le savez aussi, le Cameroun, c'est notre priorité. Parce que là, nous partons rejoindre notre notre, notre sauveur, Charles Boubara Marie

เอ้ยไม่ไม่เสียเลยโอ้โหโอ้โหยังไม่ยุ่งกบเวลาเนี่ยพบก็นกี่วันยังกินบางกุ้งบุญนักยังกี่วันพอเดินเด้อ léegi euh, lan mooy sa teewaay fi nga xam ne mooy kër Baye Barham Diouf. waaw Baye Barham Diouf ñu ngi naan comme comme Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu alhamdulillah ala barhamdu ko sakka kanko kam ko neɗɗo mo gandanɗuma hannde kala almudo mawlana cheikh ibrahima rek aɗa foti andude bay barhamdu minen komin ha pawa min immi ha fouta gaari ha saint louis mboɗen jangga ɗum bay barhamdu radiallahu anu waɗi min ɗottimin liggasa min jooɗi amin liggal ko ko neɗɗo mo gandanɗuma goto foof mo foti andudemo avant tout dañuy ne salaamaaleykum naa jërëjëfee Baye Bara jërëjëfee Baye Bara di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram ndaxte tey lépp lu ñu mën ci am yàlla am na ndaxte féetee nañu moom wallaahi amul tànk ginnaaw ndaxte kese kese yàlla bàyyi ko suñu kanam. yàgg fi lool parce que depuis gàmm ba léegi. ñu ngi fi. dëgg fa yàlla lekk yi manqué naan yi manqué macha allah daal. moom daal dañ koy ñaanal yàlla rek yàgg ci loolu loolu te moom moo xam ne bëgg njabootam yàlla fa yàlla. loolu mooy seeraam loolu ak sant yàlla la rek parce que initiative boo xamante ne nii dañ koo jël ren. parce que depuis daaw jéeg ñu gis que ne dama ñëw fekk fii nit ñi feebar léegi nag du coup nit ñi bu ñu moom moo daan jël xaalisam di ma di ma jox naa mën naa jënd ordonnance leen noonu daaw tamit ma ñëw waat la même chose te xam na ne que ne gàmmu gi moom muy jël xaalisam di ko faj wallaahi mun ma mun ma sax compter ñaata du coup ñu jël initiative euh, xalaat ne mën nañ koo mën nañ koo fatal buntu boobu te ñu indi ay garab teg ko nga xamante ne nii bépp taalibe boo xamante ne nii dara mu ngi koy métti bu ñëwee ñu mën koo faj gratuitement ci lu ñu am li initiative bi loolu la du question ne sama xaalis la man kese déedéet du sama xaalis man parce que lépp moom la rek. lépp moom la li ma naa daal képp koo xamante ne ñëw na dara mu koy métti yàlla may ma dara bu ma ko fajee. te tamit yàlla may ma surlu boo xamante ne nii su ma ko fajee mu loolu dong la ñuy ñaan yàlla barkeel faj ba nga xamante ne nii lépp lépp lu waay amee ak lu mu tar tar tar tar buñ ko joxee dara bu wér ci doolee maam Cheikh

ndax ku xam Awa Samb démb bëgg démb xam ko tey xam ne wallaahi yokkute am na te alhamdulilah ni moom laa koy jagleel ndax bu ñu woon moom barke seen tijaan mu ñaaw féete nañu fépp bàyyi bàyyi bu dee fu ko fu mu ko toll gàncax sa tool sa ji loolee nee na bu doon yàlla bu ko doon may benn da koy naan ne ko yóbbu bu diiri te pourtant de fii la def ñun xam na kooku sori nañ ci moom lool lool. ñu teg tegu ko ñu dee ñun luñ koy ñaan yàlla rek moom na am fulaay bu incha allah ñu ngi si yéene ci moom yàlla yeggali ko xoolee moom milliard ba laal lan ngay tàggatoo baraam abdu baraam di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ñu dem ci jàmm yegg ci jàmm dem waa ci jàmm yàlla ñu ñu ñu càppe yàlla ñu dem ñu ñu ñu ñëwaat ay ati ati at ci doole maam sey yàlla ñu yàlla ñu lépp lépp ñu fi waay ñaan dama fi waay mbëbel ci jàmm ko yàlla defal ci barki suñu ci ñaan ci doole maam sey Massamba nuyu nañ la ziar la béggee la jox la wàccuwaay bi di am mbégte ci yow bu baax a baax di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa waaw te ñu ñëw fekk la ngay doom ci biir kër gi doo taalib ci biir kër gi mais doom nga fi ñu gis ne maanaam convoi bi euh, jóg na ñu gis ne yaa ngi léemu oto lan nga ci doon bind ak lan ban sabab nga ci am booy def loolu. sabab bi ñu ci am rek mooy nekk ñëpp am jàmm. Mhm. alo lu seytaane la tali tamit lu seytaane la ñaari seytaane buñ dajee force nga léemu oto yi force nga ñaanal leen teg si tamit kii ma koy ñaanal sama nijaay la di sama rakk yaay lii daamaaral mun naa ne daanaka oto yi fi gaar yëpp sama oto nijaay la kon loolu taw fekk tamit sant yàlla la te ñoom bu ñu amee rek mooy ñun am nañ jàmm mhm. loolu mooy sabab bi balaa ñuy def force ñu léemu leen seen oto yi mhm. ñaanal leen yàlla ñu dem ci jàmm ñëwaat ci am benn jafe-jafe moom mooy sabab. ndeysaan lii di gàmmu gi naka ngeen koy préparé surtout ma yow mi nga xam ne yooyu yaay généralu sécurité bi bëgg naa ñu wax ci loolu nga yëkkati micro bi tuuti sànnil ma ci ay kàddu en tant que généralu sécurité bi naka ngeen di préparé li nga xam ne mooy gàmmuwaat bi euh, sécurité bi. waaw ni ñu koy préparé rek moo ne comme d'habitude comme ni ñu àndee woon ak ku tedd ki dem yóbbu ko mu yegg Medina Baye Cheikh Ibrahim ñu àndaat ak moom yóbbu sécurité bi moom liñ leen ci waxoon rek lañ leen di waxaat dañuy sécurité sëriñ bi sécurité ñi ànd ak sëriñ bi ñun loolu mooy suñu mission ay mission malaaka lañ yor amuñ noppalu duñ sonn duñu tàyyi tout le temps rek sëriñ bi su bëggee rek ñun lam bëgg loolu la ñuy def moo tax tamit noonu lañ préparé tamit ànd ak convoi bi sécuriser leen ba ñu dugg biir Kaolack mhm. ànd ak ku tedd gi sécuriser ko mu mhm. loolu moo nekk suñu mission te ci loolu la ñuy dox di wax tamit ne gàmm gi dina nekk gàmm goo xam ne gàmm gu alaa lay doon daan nañ gàmmu muy neex waaye ren moo ci rawati parce que dañoo ñëw ak yeneen i bagages mm-hmm. kon incha allah ñun ñëpp xaar ñu Kaffrine dinañ xam ne gànjaay Goudiri Gambo xaalam yi ñëpp ñëw nañ te suñu yegg see rek nañ xam ne ñu ñëw borom gàmmu gi incha allah mm-hmm. kere rek dara du dara rek lu mooy ànd ak ku jara àndal parce que boo àndee kilifa goo xamante ni bu la laajee mille moom joxe ne junne kon yaakaar naa lool pour mu dem dafay yomb mm-hmm. suñ sekkare loolu la tamit suñ xol yi dañoo booloo jël benn mbir rek xitmaal ko moo nekk ñun ku tedd ki na am jàmm lépp lu mu bëgg rek su ñu ñu woo rek ñun ñu ànd ceeg moom loolu mooy suñu secret luñ liggéey jox ko moom soxlaa luñu dara waaye ñun ñoo koy dimbale suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm li ñu dajale jox ko fekk moom mu ngi denc ay millions am lii yëpp moom la lépp loo fi gis moo ko def parce que ñun amuñ ñenn ñi ay élève lañ ñenn ñi ay xale lañ ñenn ñi seen liggéey sax dëgëragul waaye nag barxaama ak bu barxaama jaral nañu ko ba lépp lu ñu ñu def ko ci bésam bi ndaxte moom bés bii la am mu ngi dem siyaari ji sëriñam fa nga xamante ni fa la jàngee fa nga xamante ni fa la fa nga lépp lu mu la ko amee kon loolu moo tax lépp lu mu wax tamit dañ ci ànd lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo moo nekk ñaanal oto yi ñu yegg ak jàmm ñoom bu ñu déparé ba yegg rek ku tedd ki topp seen ginnaaw incha allahu taala ñu fekk leen Kaffrine kon loolu moo nekkoon tàggatoo ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm képp koo xamante yaa ngi ñëw Kaffrine yàlla nga yegg seeg jàmm delluwaat ci jàmm yalla liñ fay wuti yalla ñu ko yalla nangul ci barke cheikh ibrahima barke cheikh ibrahima faas barke ibrahima abou ibrahima assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh ci gamwa bi mom dañ koy def sa ak ñu koy faral di def ñu yobbu ci jamm ñu indi ci jamm yalla jamm sa ñu bokk ko ñun ñep en tant que sofa tay sama mbokk sofa sauveur taxaw suñu dina kon do dañ koy sante yaate yalla bu baax dañ fekk wat ko rek ñu di leen di yobbu wat yalla doon ay dewe ni eh, dewe ni ci tax ñu koy def nak yalla ñu ko gën a yokk leeram. sa mbokk nga di leen ñaax comme nag. sa a jàmm. ñun kontaan nañ ci yow. alhamdulillah la ñuy wax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateur di ziar di leen ndokkeel bu baax a baax di amaat ci ak contentement bu baax ci ànd ak yéen seen allah comme ñu koy defee sa at ànd ak sama sang bu tedd bi moom waaye nag nga xamante ne moom dëkk bu tedd bi dëkk bu Cheikh Abdoul Khadr kooku nag mu liggéey liggéey dëgg yàlla nekk na nit koo xamante ne liggéey fay bu ba xëy dëddu waaye liggéey bi mel na ne tey jii la gën a jii la gën a nekk loo xamante ne la ci jaam yëpp ndax am xalifa wàññiw ci lu ci tool tarfatal ak ñu koy ziyaara bu baax a ñu ko bëggee di wax ne ñoo ngi ñëw si dëkkam ñoo ngi ñëw ndax taalibe ñoo ngi ñëw ndax koo xamante jaam la pare pour liggéeyal sëriñam pare pour liggéeyal suñu sëriñ jàppale ci liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey sëriñ muy sang Cheikh Barham Diouf xam ne itteem bi yëpp mooy liggéey maanaam Cheikh Abdoulaye muy itteem bu loolu lañu woo moo tax tey mobilisé wu ñëpp incha allah fay bu baax di la ziar buru buru kunja la waaye fii si moom buru lañ may woowee waaw waaw yaa buri ngay yaayu kër gi euh, di yaayu njaboot gi euh, ñu jógee ci gàmmu di jëm ci gàmmuwaat naka ngeen di préparer li nga xam ne mooy gàmmuwaat waaw nah, sëñ bi kontaan rek bu baax macha allah di ñaan yàlla ya yàlla may ñu dem ak jàmm dikk ak jàmm jàmm waat gi moom macha allah préparé nañ ko moom neex na trop oto yaa ngi nii xale yaa ngi nii dara manqué wut incha allah. njaboot gi nga xam ne jiite nga leen. waaw nah, njaboot gi moom macha allah njaboot gu yaru lañ njaboot gu neex a lañ wax dëgg yàlla ñu baax lañ mën naa ne sax ñoom ñoo ma ndax ñoom ñoo yaru ñoma def yaay te sax matuma yaay waaye ñu baax lañ li leen di wax dal mooy ñu gën a góorgóorlu fi seen tànk daal foofu la nañ ko fa teg rek lépp dina baax ak ca kanam rek lan ngay di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay déwén yu at bu rek di allah jërëjëf am na lu ci bëggoon buri euh, tey ñu gis ne maanaam yéenay soxnay sëñ bi te gis nañu saa ci kër gi da di ah bàyyi génn seen i néeg bàyyi gan ñu dugg si biir néeg bi lan moo waral loolu. waaw loolu boo ko gisee lépp yaru sëriñ bi la ñun Cheikh Abdoulaye Wilane moo ñu yar te ñun noonu lañ gis muy dundee ak i soxnaam ak i taalubeem te Baye Barame ku ko xam xam ne mooy Cheikh Abdou Barama li Cheikh Abdou Barama mel rek noonu la mel moo tax njabootam gi lépp benn lañ ñun ay taalibe lañ duñu ay soxla ñun ay taalibe lañ moo tax bu ñu ñëwee rek ñun lépp lu ñu am rek pour defal leen ko ñu gën a kontaan rek ñun dañ koy def bu ñu amoon lu ëpp loo sax dañ leen koy defal parce que nag kiñ koy defal jar na ko te taalibe yi jar nañ ko macha allah lépp daal Cheikh Abdou Barama. ndeysaan am nañ mbégte ci yow baax a